indi ñu nag parce que xale yu bëri gisuñu dugub naka naka lay saxee xëy ñu gis ko ci image yi. waaw mun na nekk donc euh, maa ngi yaa xam di jaajëfal ñi nekk ci plateau bi ñëpp. di remercier aussi ñi nga xamante ni ñoo tàmm di seetaan euh, suñu télé bi saa su ne. Mm-hmm. Mm-hmm. rawatina émission tam tam. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee dugub dafa nekk lu am solo ci dëkk. rawatina Sénégal. mooy céréale bi nga xamante ni tey bu ñu doon xool ci céréales yi ñuy gën a euh, cultiver. ci dëkk bi moom la. donc moom par at rek dinañu am lu tollu ci 1 million de tonnes de production ci walu dugub. Mhm. kon nek na lo xamné war nañ diko sargal sa su rawati na ci suñu émission yu ni mel. très très bien en tout cas dinañ ko fassiyé yéene sargal justement ak suñu invité monsieur Laurent euh, Gomis bi nga xamante bi euh, ingénieur agronome la way tamit euh, di chef de projet ñoo ngi lay nuyu dina daral jàmm ma ngi koy wax sank nga joggé ba Kaolack ah te defe naa ne nag léegi ak autorité à ak yoyu yooyu Kaolack defe naa dootu ñu jël autant de temps way nak dégg na tàng na. 我这个。

yeneen mhm. euh, euh, a naka ngeen di jëfandikoo surtout sunu environnement bi. parce que xam naa ne pour bay lu bëri lii euh, soxla na espace bu bëri. est-ce que nga fay ya ngeen fay def est-ce naa ak li nga xam ne baax na suñu ko environnement. Mm. en loolu yëpp dinañ ci ñëw ñu ngi lay gërëm di sant bu baax a baax. mbokk yi ñu nag beneen invité di kontaan nag ci teewaayam fii ci studio

teg ko fii. Mhm. indi ay dëbbkat. dëgg la xam nga dëbbkat dëgg dëgg dafay kandang. wala day <laughs> kandang de. dëgg la day kandang. kandang maanaam ñiy dëgg. ñiy dëbb suñu mhm. demee ba mokkul ko dëgg. Mhm. dañ ciy lancer ay messages. dañ ciy tëgg dañ ciy fecc. moom la wax kandang et puis c'est très gis nga dëbb bi nii léeg-léeg dëbb ba def nii. Ah, ah, ah. yàgg na yow nag moo tax ba nekk ci mu ne xale yi walandoo day dégg kandang kandang waaw day neex a waxal mhm. parce que dafay am dégg mhm. waaw te léeg-léeg sax nga gis gën gi ñetti ñetti ko di ci ne. ngay def ni kii def ni léeg-léeg ñu tàccu en tout cas dal xalé yi dal war nañoo <laughs> jéem a xool dellu si waat ci li nga xamantene bi ñoko mom hmm. mais nak malheureusement au niveau de de Dakar ak euh, surtout yenn ville yi. Hmm. defe na lu bëri dafay xaw a réer nak télévision yi dañ fi nek pour di woné lu bëri. Hmm. motax xamna dinañ ñëwaat bu baaxa baax ci li mbokk justement ñëw ak yeen ci mirum environnement and ci ak soxna Khady Camara mu ne nak li nga xamantene bi mom moy euh, dal mil bi euh, dañu koy bay fi ci sunum rew donc ñu gis nak ne que mu am ben place nak bu mak ci culture bi fi ci Sénégal muy nag benn créneau bu nga xamante bi dal euh, vraiment développement potentiel si ay stratégie ak euh, yeneen i mbir yi nga xamante ne bi mën na cee jóge mbokk ñu dem xol dal ana lan lañ ci ci Khady Camara indil dal euh, ci lolu delu ci wat mëna yaatal waxtaan bi nak vraiment ci plateau Tam Tam culture boo xam ne maanaam dañ koy bay ñuy bassin arachidier bi dafa ëmb lu jógee ci Louga wàcc jëm ba ba nooru Tamba foofu yëpp dañ fay bay dugub dugub boobu nag ñuy bay boo gisee statistique agricole day na ne moom mooy première culture produite cultivée au Sénégal dugub donc dugub boobu nag ñu gis ne ci bassin arachidier yëpp dañ koy dunde

dinañ ci defar euh, ñeleng dinañ ci defar laax ngalax caagiri dinañ ci defar même dugubu kari bu ganaar dinañ ci um, croissant dinañ ko ci defar euh, dinañ ci defar même sur le plat. gis nañ ne nag dugub bi am na ay jafe-jafe yoo xam da ko jànkoonteel gëstukat yi bi ñuy yëree ba càmbal xool nañ ne jafe-jafe yu bëri dugub bi am na ko mais buñ ci doon lim ñeent wala ñett dañ ne benn gis nañu suuf si nekk ci bassin arachidier bi suuf si dafa commencé di sonn sonn na sonn boo xam li ñu war a am ci dugub duñ ko mën a am ñaareel ñu gis ne ni ñu war a bayee dugub bi maanaam ni itinéraire technique maanaam ni ni gëstukat yi waxee la war a béyee dugub bi béykat bi duñ ko béyee noonu. lolu aussi mu nek galankor bo xamne ne li tax ñu li ñu war am ci quantité duñ ko mëna am ñettel bi aussi ñu gis ni amna ben euh ñax bu ñu wax nduxum bo xam day solal dugub boole ko ay pratique yo xam nit ñang koy def muy dag garap yoy tax suuf ci day dugub rek dunde moom lay añee mom lay reeree mom lay ndékki am na loo xam muy ciébu bu dugub def ci poisson fumé def ci lépp togg nañu ko loolu yëpp mi ngi fii togg ceebu ganaar bu dugub togg ñeleñ ñeleñ am na fi moom mooy loo xamante ne dañuy boole sànqal bi ak gerte gi ak dafa riche trop riche na trop trop trop même sa bon bi ngay dégg ñëpp di ko nañ ko ak dugub Jangan jangan gitu, jangan waaw c'est vrai nag la dernière fois maa ngi koy wax ma ne euh, vraiment fiyaara ba euh, soxna Khady Camara jar na dem gis nga rek euh, gone Ndakaaru doy na waan au lieu ma ne dugub ma ne mil <laughs> te mm-hmm. tey mbirum dugub la ñuy wax bu nekk nag comme sànq ni ko benn ci intervenant yi waxee nee na bokk na ci produit yi nga xamante ne bii niñ ci bay bëri na waaye tamit am na ay difficultés yu nga xamante ne bi ñoo ngi koy jànkonteel waaye nag ci wàllu jigéen ñi en tout cas ñu gis nag nekk xam nga léegi-léegi ñu ñuy wan naan ceebu plastique ak yooyu waaye ñun am nañ ay mbir yu nga xamante ne waroon nañ ko mën a jëfandikoo te vraiment xamuñu ko parce que li ma gis li ñu présenté ci fiara bi lépp am na ci lépp façon mu lekk yëpp defal nañ ko à base dugub et c'est ça et je pense que ci biir lekk loolu lañ ci mom lañ ci wut ya xam dafa melni ni que Sénégal jaratul sax ñuy djégané mhm. parce que ñun ceeb bokkul ci suñu culture. Mhm. culture chinoise la. wala ci pays asiatique yi. Mhm. ñun ah. dugub lañu xam. bo démé ci all bi dëkk yi nekk village yi. village bo dem. muy sama boss ca Fuuta. muy sa boss foo dem. dugub la ñuy donc nek na lo xamante ñun dañ ko war di valoriser saa su te gis nga liñ ci mëna def yépp mu nek lu am solo. motax tax bima démé Fiara ma ngi remercier au passage. Massayer Thiaw di suñu mm-hmm. caméraman nekk mm-hmm. fii parce que moom moo ko gis. Ah. mu ne ma Khady lii doo ko bàyyi mu dem foog voilà foog foog ñu wax ci. donc euh, ma xam ne li mu wax dëgg la. Mm-hmm. il faut que ñu wax ko wane ko. suñu doom yi gis ko. seen Dakar waay yi gis ko. xam ne kat ñun am nañ xëy na yeneen plat yoo xam ne. war nañ koo mën a togg fekk du jar sax ñuy utiliser ceeb. ndax am nañ ko fii ci suñu réew. Mhm. kilo dugub li muy jar seerul yaa xam mu ngi jar ay quatre vingt quinze. Ah. franc CFA. cent cent cent cinquante. cent cinquante ah xam nga loolu seerut. mun nañ mën mën nañ cee am lu bari. Mhm. ci loolu euh, ñoom dañu am projet boo xamante ni moom moo boot ay entreprise yi nekk ci wàllu di liggéey ci wàllu dugub yépp mhm. basé wu ci bassin arachidier bi fële ca Kaolack donc moom mii moom mooy seen njiit xam naa man sama laaj bi ma koy njëkk laaj. moy nek mu wax ma ñom seen particularité manam ci chaîne de valeur bi nga xamanteni mom moy walu dugub ci Sénégal. ok merci euh, madame Camara en fait euh, suñu projet bi. Mm-hmm. Euh, pour pour pour nit ñi mëna xam en fait euh, fa fan fété ñu tudd euh, projet des services des entreprises du mil. Mm-hmm. d'accord manam particularité projet bi moy que projet bi yëngul amul benen béyteef bu muy def. duñ def dugub duñ def euh, commande ceeb duñ def euh, dugub rek ngeen di bay dugub rek la ñuy def d'accord amul gerte amul leneen dugub mhm. rek waaye nag waaye bu ñu nee dugub euh, mooy chaîne de valeur bi yëpp lañ lañ am mhm. maanaam depuis mbay ma ba ci ba ba waaj fu muy lekk ba ci restaurant ba mhm. maanaam dañuy gunge baykat bi ba ci restauratrice ba très très bien léegi nag comme da ngeen di gunge ba ci restauratrice bi ñu ñu dooree nag ci mbayum dugub mi pour ñu xam naka la tëddee ok pour mbayum dugub bi en ci projet bi Euh, dañoo am d' abord première première phase première phase bi bu ñu egsee parce que dañoo gis ne rendement dugub bi dañoo wàcc dañoo dañoo daanu trop. da gis ku bay ba nawet bi kii. Mhm. Euh, jeexal jeexal nawet bi mu nekk ci à peu ay trois cent quatre cent kilos six cent kilos à l'hectare. Mhm. xam nga loolu moom du encourager béykat. Mhm. projet bi ñëw nag jàppale nit ñi pour au moins ñu jéem am ay rendement yu baax. rendement yooyu ci lay ñëw ci environnement bi en fait. Mhm. parce que c'est très important euh, bu dé dañuy def dañu bëgg yok ay rendement c'est pas n'importe comment lañ koy mhm. euh mën nañu utiliser ay engrais waaye bo utiliser yenn yenn dose engrais yi. Mhm. day dem ba souci si day gën a euh, dañ koy day gën a yàqu dootul nangu lu bari té lolu day dëkk ay day diké ay perte ci bay baykat bi parce que engrais ba dañ koy jënd. ñu indi ben méthode bu de agriculture de conservation manam conservation c'est conserver la nature en fait. d'accord c'est-à-dire au lieu que nous engrais hmm. engrais mais utiliser plus euh, euh, matière biodégradable maintenant, biomasse bu am ci euh, ci ci des fois ay fay hmm. au lieu composter compostage. Hmm. ba vous localiser compost ba parce que xam nga temps bu comment dire compost bi vous ko ci tool bi. localiser exactement fu ñuy D'ailleurs, en 2003, on a bien un projet pour nous lancer un programme justement pour l'agriculture durable durable sax ci ci tout à fait et donc ci biir agriculture durable boobu mhm. même ñun sax dañoo dañ ci intervenir un projet bu USAID la mais dañ ci intervenir en mettant en place nous bu ngeen demetee internet ngeen tapee euh, conserva agriculture de conservation nous ngeen gis euh, ay que ñu ci def mhm. et donc loolu

en fait dañu ngi utiliser benn matériel bu bees bi nga xam ne bi moom euh, bokkul ci arsenal euh, comment dire la matériel bu Sénégal en fait mm-hmm. bu Sénégal defar depuis depuis très longtemps ay usines et cetera. Mm-hmm. usines yooyu yëpp ci lay bokk mais dañu indi leen beneen coppite beneen affaire bu bees bu ñu tudd Reaper Reaper benn machine la bi nga xam ne day xotti suuf si localiser ko te instant bi nii. waxtu bi nga xam ne tawagul. Mm-hmm. le paysan bi le baykat bi di di waajal toolam. donc Reaper boobu nag lu bees la. Euh, mais dañ ci former ay artisans. Mhm. comme Rades ben groupement bu nga mo dañ leen former té état bi sax euh, euh, jël nañ fi grand prix du chef de l'état mhm. euh troisième ci grand prix du chef de l'état buñ def fi sorono ñom sen sen matériel boobu bokk na ci nga xam innovation la. Mhm. ci grand prix du chef de l'état et donc matériel bobu nak formé nañ ci ay artisans. Mhm. ñu ngi koy defar. Mhm. mais ñun ñoo ñun ci ginnaaw dañ koy sponsoriser pour béykat yi mun ci am en fait. Mhm. donc euh, matériel boobu nag en fait tey jii bëgg nañu en fait euh, boole ko. ci matériel yi xam ne état bi da koy sponsorisé. de telle sorte que béykat yi mun ci jot.

tubaab bee ko fi indi. mais sa njalbeen. borom kër ba nga xamante ne béy na tool dugubam. ba góob. ba dajale. dugal ci sàqab. dafa naan man de am naa lu ma dundee ren ba déwén. <coughs> daal di defar piliyaanam. sàq mooy lan sax ëttam sàq mooy grenier. Mhm. bu ñu daan denc damay wax ah, moom na de dañuy laaj pour ñeneen ñi ah. pour uh-huh. que ça soit clair. ko daan defee euh, kon boog la. Mhm. place boobu nga xamante ne nag moom lu occupé woon démb ak barki démb. Mhm. te produit yu bees yi ñëw jël ko te suñu koom-koom matalu ko amuñu autosuffisance baax na su borom xam-xam yi gëstoo ba xam la maam doon def ci dugub démb baax barki démb ñu innové nag indi ay gëstu yu bees comme ni ñu ko wonee di ci def ceeb di ci def ay gâteau mhm. di ci def mbir yooyu mhm. defe naa li ci des mooy siiwal ko mhm. jàngal population yi bu ñu xam ne dugub bii kat place bu mu nekkoon mën nañ ko fa delloo moo tax vraiment très et puis sax ñu ñu delloo ko ci parce que gis nga dugub yi ñu yore ni ah li nga xamante ne bi ñun gis nañ ko xam nañ ko moo gën li ñu naan ñu ay plastique laak du loolu ah non mais c'est vrai je rigole pas et puis en plus c'est c'est c'est plus sain c'est vrai ah et sànq ñu ngi wax ñu ngi wax ba léegi ñëwuñu ci mbirum euh, li nga xam ne mooy par exemple rouille parce que ku ñu nekk tamit euh, alimentation xalaat xale yi. Mhm. yaakaar naa ne loolu tamit baax na ci ñi nga xamante ne bi mooy suñu tout tànk yi. Mhm. et c'est naturel et c'est très bien pour eux. gisoo maa ngi xool fii li nga wax ma koy dëggal. calories yi euh, am na am na protéine am na lipide cellulose phosphore fer bi nga xamante ni xale yi dañ ko soxla lool ak calcium. Mhm. am sodium ak potassium. donc dafa mel ni dafa mel ni rek aliment bu complet lay nuróol. moom lay nuróol mais Sénégal yaa xam dañuy gis ne muy wàll gerte bi muy walu oignon bi waxoon nañ ko fi moy soble bi euh, tout le temps dañuy am ay problème de conditionnement. absolument est-ce que dugub bi da ngeen jànk jànkonteel ak problème de conditionnement à conservation. en fait euh, conservation dugub conditionnement conservation en fait ça bon ñaari ça ça va de pair. tout à fait ci walu dugub le problème bu euh, béykat bi di c'est surtout magasinage en fait. ah d'accord Pour à mes magasins de stockage. d'accord tey jii aller à ay magasin de stockage il y a euh, magasin yi dañ ciy dugal lu Mmh. Euh, des day dugal gerte dugal lenen et euh, et du coup euh, loolu le na indi comment dirais la problème par rapport à la ravagerie, par rapport à insectes yi. yi attaqué bi produit wala du attaquer le produit donc loolu mooy comment dirais difficulté majeure. par mmh. rapport qui chaîne de valeur du groupe. Mmh. cependant tey jii euh, euh, état bi mu ngi ciy def ay dans le cadre du euh, du conditionnement. Mmh. dans le cadre carrément de fini d'affaires du ay magasins yu et autres. même mmh. projet tamit xam nga même suñu projet boo gisee. Mmh. ñun dañoo le ak état bi. C'est un projet financé certes par l'USDA mais bu amenez xam état bi ci boppam autorisé mon programme d'investissement pour nous mën qui liggéey qui yenn un ami. et donc l'eau en fait moi c'est un problème mais le problème problème boobu c'est justement uniquement au niveau des exploitations mais bu jógee fou. Mhm. en général am ci avez ci mhm. mhm. milieu rural bi. en général d'ici euh, au mois de mois de juillet août. Euh, d'accord ah, parce que tout simplement quand quantité produire. dafa tellement que. Euh, amaguñu euh, problème de conditionnement yi réy réy yooyu. par rapport ak demande bi. par rapport ak demande bi. Mm-hmm. Abdourahmane yaa ngi dégg lu mu wax nee na production bi néew na. waaw mu nekk lu nga xamante ne bi yaakaar naa ne warul woon. mais mm-hmm. faaw tamit ñu gën cee ñaax population bi. Mm-hmm. pour tamit ñu koy gën a utiliser. effectivement parce que filière bi man euh, li ci gën a am solo. loo xamante ne en tout cas war nañ cee gën a mën a bàyyi xel moom mooy culture familiale la. manam ñi nga xamantene ni bokkul ak comme riz. Mhm. riz nga xamantene par exemple ceeb bi ay entrepreneur ñoy dem investir et cetera dem mais fi ay famille ñoy bolé mhm. diko bay donc mu doon ben affaire bo xamantene ne bu ñuy wax walu sécurité alimentaire. Mhm. comme niko monsieur gay sank waxé en milieu rural. mais nekul riz bi. mais mille bi lañu wara gëna a xel. parce que moom la ñuy bi waaw dugub bi. <laughs> Euh, waaw c'est que français mille lay wax rek. <laughs> te te ñun olof sax am nañu

production bi war nañ ko gën a mën a yokk. tout à mhm. fait yokk aussi capacité de stockage yi. absolument pour que famille yi war cee gën a mën a dund et cetera. tout à fait loolu pour milieu rural bi la. Mhm. milieu urbain bi nag. Euh, classe ou sama genre gi nga xamante mhm. euh peut-être processus de transformation bi yëpp mënuñu ko. Mhm. produit fini yi gën comme genre et non seulement ni ah, fi ni ni ah, mais aussi il faut dire que aussi. Mhm. les Sénégalais de l'extérieur ils l'utilisent beaucoup. voilà c'est-à-dire que nous wara travailler. pour les produits finis comme genre les produits transformés finis nous mëna am sen place ñu gëna mëna am euh ñu approvisionner. milieu urbain parce que man bo xolé cere. Mhm. sama maas yi ñu si bëri dañoo bëgg cere. Mhm. mais fan la ñuy jëndee cere. mooy maire bi nga xamante ne dem. buñ ci lekk teg lekk cere. Mhm. te parfois conditions yi. d'hygiène yi. mën na tax. soo ci bëggoon jënd lu bari sax tuuti ngay mm-hmm. jënd ne warut ko. Mm-hmm. parce que du temps da nga koy lekk ba pare nar a tëdd. <laughs> justement li muy wax am na solo parce que même ci seen i réalisation je pense que ne yéen euh, li yéen a koy def boo mënoon dikkaat tuuti ci réalisation seen projet bi avant avant may dem ci réalisation boobu en fait euh, lu mu wax dafa am solo mm-hmm. par rapport à chose comment par rapport à comment dirais-je hmm. par rapport à euh, sécurité alimentaire effectivement D'ailleurs, en 2009. nous mhm. euh, ñu établi ça sasoon moo nekkoon pour faire boo buggee reculer pauvreté bi. Mhm. pauvreté bi wàññeeku. Mhm. ci milieu rural. avons nañu qui rendement dans ci bassin arachidier. la région Kaola-Kafrin. Fatick. loolu moo nekkoon premier objectif bu xam ne état bi daf ñu ko sas. Mm-hmm. nañu def leen tout de sorte que ak seen i xam-xam ak seen technicien ngeen yokkal ñu rendement ba. Mm-hmm. heure bu rendement yi yokkoo. parce que mm-hmm. boo xoolee boo boo jëlee euh, mille douze mille producteurs à l'époque euh, état bi au moins touché leen douze douze mille producteurs boo ko boo leen boo leen kiiyee boo leen euh, encadré. ba ñooñu seen rendement yokku imaginez le producteur bu nek euh, hectare nga 300 kg par euh, aussi ci hectare ba ku a am 600 kilos am 900 wala une tonne. Mhm. ça fait à peu près 400 kg de différence. imaginez producteur qui a multiplié seen seen. Ah, non non c'est un mhm. mhm. ça fait des tonnes et des tonnes. effectivement Lolo, quand on ko réalisé de 2009 à 2014. on s'est rendu compte que. la production ba yokku na am a ñi nga tracteurs, on charrettes, tey amuñu tracteur donc il faudrait yónni ci beneen palier bi. Hmm. beneen palier bi mooy nañ jéem a stocké jéem a jaay. ensuite ñëw ci transformation ba. Hmm. d'accord moo tax transformation bi en fait du en fait du question projet mais mouvement d'État la mouvement euh, national la. Hmm. est-ce du question sectoriellement suñu projet moo koy def et cetera am na yeneen projet yu koy def. ay ñoom PAFA ak ñeneen extra du publicité en fait. mais ñoom ñun dañ ñoom ñu koy def mais benn mouvement en fait national la parce que agriculture dem kanam. Mhm. il faudrait que ñu def tout ba yow mi nga xamné do bay mhm. yow mi nga xamné amo ah, euh, mhm. jot ci dugub bi. ba mu des. li des li. ñu ba ñu ko ci anam yu baax. mu ci ko et au-delà de nos frontières d'ailleurs. voilà et donc par rapport à l'hygiène effectivement boo xoolee boo demee si sur au niveau de Dakar nga dem au niveau de des grandes villes dangay gis euh, borom euh, maire fondé yi morfe maire fondé yi di taxaw di jaay et cetera en général euh, boo solee costume doo doo fa jege nga sol robe bu rafet doo fa jege. <laughs> parce que da nga ne non man mii ah maire fondé bi autre <laughs> mais tey jii ñu ngi xalaat. naka la ñuy tey jii boo ah, yéen da ngeen di jënd ay pain ci kiosque. Mm-hmm. Mm-hmm. mburu mm-hmm. Euh, dañuy jënd cere sax ci maire yi nekk ci koñ yi. waaw oh, mais oh, mais du bëri. parce que gars da ngeen di douter hygiène ba. tey jii on est en train de rehausser cette euh, hygiène boobu ak waa it. Ah, c'est-à-dire transformer. mais yobu transformatrice yi ba ci ITA. très très ah, bien jàngal leen. très bien ah condition ak hygiène. et ensuite defar ay kiosque. effectivement ah ça c'est important pain de mille bi amon na fi mais malheureusement ça parce que nous aussi tàmmuñu question de culture la aussi. aussi éducation à la voilà tout à l'heure je <laughs> disais que on va essayer en tout ah. cas avec les moyens que nous avons. Mm-hmm. nous ramener la population. ci utilisation parce que nous, bëri xadi comme on va terminer. nous, euh, bëri xeyna euh, amna yu bëri yu nga xamantene bi nañ ko def ci ci ci euh, bi. Mm-hmm. et je pense que c'est bien de vulgariser tout ça parce que koy wax c'est aussi un problème de santé. Mm-hmm. parce que ah voilà. Bien mm. sûr. Pour une bonne santé, il faut, bien manger. On va terminer. Oui, ben, comme on est dans la rubrique environnement, je ne saurais terminer cette page sans pour autant euh, je vois rien du tout. Ensemble, protégeons notre. <laughs> Ensemble, protégeons notre environnement. Uh-huh mesures d'adaptation au changement climatique. waaw mu nekk lu am solo. Mhm. ma gis ko ngeen koy def ci emballage mhm. donc c'est à applaudir mhm. c'est à vraiment encourager parce que ñu ci gën a bari. <laughs> y a ñuy yore plastique. sans qu'il ngi may wax micronage ma ne la man sama yoon nekkul ci micronage li ma intéressé mooy plastique laa bëggatul gis donc euh, yéen fan ngeen toll ci loolu est-ce qu'il y a ngi sensibiliser ñi nga transformatrices pour ñu mën appliquer bi, te fekk ne bii dañ koy éradiquer ok euh, c'est une très bonne question. Mhm. et question bu ñu bu neex la en fait. Mhm. parce que bon gisee craft yi nga a des nii euh, du usine moko ko defar. Ah. hein? emballage emballage boobu. Ah. Mhm. Ah. usine defaru ko en fait. kan moo ko defar ay ay jigéen. ñoo defar manuellement. te ñun ñoo leen pour ñu defar loolu. très bien euh, ci seen biir unité. formation bi day durer à peu près une journée maximum. Euh, dañuy ñëw sa unité wala nga envoyé ay nit yu volontaire ñu jàngal ko nu ñuy nu ñuy nu ñuy lii. effectivement ñu ngi koy defaree. et ensuite maintenant yini y euh, ci biir sa am amna aluminium mais mhm. pourquoi pas. Hein? aluminium pour conservation pour conservation en fait té aluminium bobu dañ tout simplement donc mais c'est n'est pas encore tellement développé. Mhm. on est simplement au début. Mhm. voilà très très bien en tout cas euh, comme Nico, euh, un téléspectateur bu M. monsieur Moustapha Diop dima wax vrai que c'est un sujet intéressant mais à chaque fois vous n'allez pas au fond des choses on ne peut pas. <laughs> parce que c'est une émission qui dure 52 minutes. Tout à fait.

di fi dund léegi ay cent et quelque bëreetul te loolu yaakaar naa ne problème mu lekk daf cee bokk lool euh, mbokk yi en tout cas ñu ngi leen di gërëm di leen sant te nag comme ni ñu ko gisee ñu ngi respecté bu baax a baax li nga xam ne moom mooy environnement bi mm-hmm. ñu xuus ak yéen nag ci euh, littérature ànd ci ak suñu xarit Abdourahmane Abdourahmane tey dafa ànd ak ñun ñu dem xooli benn jeune auteur bu bu nga xamante ne mi ngi tudd Cheikh Mouhamad Diop ñu ne nag euh, moom euh, dafa am xalaat bu nga xamanteni ne bi yaakaar naa ne euh, am nañ xalaat bu mel nonu muy dal nit ku nekk dal sa trésor la nit ku nekk repère la donc nit ku nekk dafa am mission bu nga xamanteni bi daf ko wara def sur terre et je pense ñun ñepp on est d'accord là-dessus donc li nga xamanteni bi dal mu ngi ko tënk ci téeréem bi dem xol mu ne vie rêvée ñu dem xol mbokk yi dellu siwaat treize bi rêve euh, bu ma ko mënee wax mooy euh, dañ nit a toog doon xalaat àdduna bi di ci xalaat ay xalaat yu am njëriñ am yu amul njëriñ ba mu ko ba mu yóbbee ko ci ay nelaw ci nelaw yi nag euh, ci biir gént gént bi daal di ko feeñu luy wax ak moom ne ko dinaa la may nga am possibilité xalat ay mbir yu ëpp solo li téeméeri junni yoon te boo demee ba ñëwaat yow di nga xam lan moy doomu adama di nga xam ñi nga dëkkal ñan nañ donc nak euh, dina la may nga dundu juroom fukkat yo xamantene ci gënt rek lay doon jangat yiñ ci mëna am bëri na parce que tay euh, wax nañ ci aada wax nañ ci xaleel wax nañ ci jigéen yi di jaay seen bopp wax nañ boo wax sax dundinu rab ci ci ci ci ci ci biir àdduna ak la rab bi di ñu jàngal ñun ñëpp donc tey fukki dund yeeg ñett yi dund bu nekk dund bu nekk dafay ñëw ne la ah, man lii laa dund ba pare laaj la bu la laajee nag yow mi yow mi liir livre bi yow mi liir téere bi yow mi ko jàng yow yaay xool lan ngay tontu waaye ki ko bind moom tontulul la ki ko bind dafa ñëw am lu mu seetlu jéem ko xóotal yombalal la ko teg ko say loxo donc euh, livre la boo xamante ne nii maanaam euh, solo philosophie li naan existentialisme mooy li nga xamante ni dafay nangul doomu aadama mu mu dund ci coobareem mu dund ci ni mu ko neexee loolu la la livre bi solo livre bi yëpp foofu la nekk mooy nangul doomu aadama ak li mu doon man bi may bind téere bi euh, li ma ci ëppaloon solo mooy que ñu tegaat doomu aadama ci ci ci centre lépp voilà man loolu laa bëggoon doomu aadama daal lu mu munti doon rek bu ñuy jëf ñuy xam dem na ba ci euh, sandi saltel mbedd yaangi yaangi yaangi yaangi yaangi lor sa morom dem na ba ci tamit euh, xol doomu adama mu am nu mu melowoo rek nga bëgg ka troxal wala nga nga nga nga bëgg ko son humanité aw ma nga nga bëgg ko bañal doomu adama bi mu doon loolu amul fenn donc téré yu bari dañ koy tere dañ koy bañ mais ñun si suñu dëkkin dañu dañu kiwul dañu dañu dañu fonkul aspect bobu non trop dañ gaawa nit fu mu dëkkul te yooyu noonu yëpp ay mbir la yoo xamante ne nii dafay dafay tardel société. téere bi téere bi yàgg na yàggul parce que jël naa lu toll si ñaari at balaa balaa ma koy balaa ma koy pare laata ma koy pare ci biir ñaari at yooyu nag dina am yenn saay euh, xel bi xel li lu bari ma ma bindul ma bind ñaar ba ñetti dund comme yenn say mun naa toog ay weer duma duma duma duma mun bind duma duma xam dara mais lo ci ki dama wul won nak dama bëggon rek limay euh, netali mu am sens am fil conducteur mo taxone euh, livre bi jëlon temps bu bari bobu daal en tout cas abdourahmane ñi ngi lay euh, gërëm di la sant waye dafa melni ni abdourahmane xel dekkul fenn te mhm. leg leg nga gis ay ndaw yu nga xamantene bi defena ne mhm. sen ay xalaat xëy na léeg-léeg dangay ngay liir sax nga ne ñii weesu na xëy na mhm. ay atam waaye daal en tout daal vie vie rêvée la mu ca tënk daal ak la ñu ca jot a déglu ñun mhm. daal dafa mel ni daal téere bi comme ni mu ko waxee nit suñu liiree xam naa ne war a mën a indi suñu ay waaw euh, comme ni nga waxee téere bi ay jàngat yu bari la mhm. euh, maa ngi gis sax suñu invité bi monsieur Gaye mi ngi yëngal boobu parce que euh, dafa am moom ay résonance comme ni ñu koy waxee ak li muy développé ak suñu invité bi nga xamante ne mooy monsieur Gaye foo xamante ne yitteel na ci ay livre mooy humanité ñu mun ko tekkee ci nité loolu Mohamed Gaye mom, wàllu finance la jàng mi ngi liggéey ci finance c'est un jeune mhm. euh, euh, dafa ñëwoon Sénégal récemment mais fële la nekk tugal la basé wu mais ci finance mhm. mais ko philosophie ak réflexion mhm et boo xoolee livre bi sax mi ngi naan repousser les limites de la pensée. Mm. Euh, nan la ñu euh, utiliser xel. Mm-hmm. wala nan la ñu mën a xeltoo nan la ñu mën a mm-hmm. xalaatee. Mm-hmm. ba fe ba ba yokk. nite nit ki. loolu mooy li nga xamante ne waaw voilà loolu loo nga xamante ne nii lay développé ci livre bi. Uh-huh. Euh, mu jël ko ci treize chapitres. loolu moo tax mu nekk mu tuddee ko 13 vies rêvées. chapitre bu nekk mu am loo xamante ne nii moom lañ ci jàngat. mais nag vers la fin du jox leçon de morale wala du du du du imposer lecteur day lecteur bi parce que mhm. confiance mhm. bi mu am confiance ci nit ak nitem motax war na pour man de bu rab yi bu rab yi intéressé na wax na waxu rab yi wax na waxu waxu aada. waxu cosaan et cetera. Eh, waxu prostitution. mu mhm. doon ay ay ay question de valeur. yi mhm. nga xamantene ni dans notre société. Mhm. mais valeur fay dafay da fay mengo ak société bi dan lay xalaatee. xam société bi ni mi xalaatee ak nan lay lolou mom moy euh andi. yenn réflexion yi nga xamantene mu ne mu ne vie rêvée vie rêvée mhm. vie rêvée en fait euh, mais vie réelle tu mhm. xam nga ku ci tu am nga sa tu part et la littérature <laughs> mais c'est c'est c'est merveilleux tout mhm. simplement xam nga olof dañuy wax c'est -hmm. livre wante wax un bi ngay sur cette dimension yooyu yëpp dafay des ci livre. Mhm. les religions révélées. qui mhm. téere lay tënku. Mhm. le premier mot utilisé par le Coran. moom mooy iqra. au nom de ton Seigneur. qui a créé. sur les ci Bible bi au commencement. était était le verbe. So, demee ci ki nga ne moom mooy wax yi mhm. wala rabu àll yi bi mhm. koy mhm. bi ay vocable utiliser donc le verbe pour manipuler wala le gaynde gi lu ko neex dafa soxor mbiram nga ba mu mel c'est la force du verbe donc cette force du verbe là. Mhm. moo war a waral su fekkente ne nit ki dafa am une vie intérieure. Mhm. très dense. Mhm. leg leg mu fatu. dem dans la solitude. et en ce moment. il commence à rêver. moo tax bi muy wax ma yëngal sama bop parce que lolu dama koy denk nit ku ne. nit ki leg leg da ngay nangu sa bop ci foule bi. dugg ci wéetaay déglu sa bop mhm. gi nga soo dégloo sa bop ba déglu ko mhm. faw nga jël khalima bind. Mhm. moo ci tegu parce que tu deviens tu veux transmettre. absolument manam géej googu nga dugg. ba gis fa ay mbir. dang koy bëgg a tu veux raconter ton rêve. très bien en tant qu'écrivain. yow yan instant la lay dikkel parce que yaa ngi naan faaw nga fatu. pour nag waaw xam nga moo man téré yi ma bind. li ma uh-huh. koy bind ndaw laa en fait yii c'est mes écrits de jeunesse. Uh-huh. motax tay damay diggal samay dom ak kep kuy ndaw ni wutal ben ben kaye. nga tek ko sa wet. Uh-huh. leg leg so dajé lu nga xamante ne yëg nga ne lii solo important na. nga uh-huh. fixer ko par l'écrit. instant ba ngay xalé nga def date bi nak nga ne li manko bind en telle année 15 ans la amone li manko bind à 18 ans. da ngay gis sa évolution esprit et tu te rends compte que instant bobu nit ki bind téré en fait. su paree léegi siiwal. da koy jaay mais boppam la ko bindal. Mhm. parce que da koy takk. Ah, mhm. Mhm. <laughs> te téere bi da koy aar. moo tax bi may édité livre bi nga baal ma. le nègre international avec Élie Charles Moreau am na benn instant ñu am problème ma ne ko Élie livre bi suñ ko les chantiers waaw bu njëkk bi waaw ma ne ko suñ ko lakkoon livre bi jël naa ko ba pare c'est vrai. Mhm. maintenant je transmets. donc suñ ko lakkoon man pare naa ndax téere la te takk ko. Mhm. fofas qui mhm. sama xel ak ci sama dënn Moi, tax mon coup koy déglu moom xale bi muy wax alors j'ai dit bravo yal na yàlla sàmm ko sàmmal ko xalimaam mu un yeneen téere yi nga xamante ni dina jëriñ parce qu'il nous faut écrire il nous faut raconter nos rêves effectivement tey jii kër goo dem ñu ne kër amna lu mu am. Mm-hmm. comme keur maam borom Touba. Mm-hmm. wala keur maam El malik wala keur kilifa diine yi fi nek lan mooy différence bi. Mm-hmm. liñ ñu fi bàyyi bind bàyyi fi. justement ci loolu la ci loolu la bëggoon wax parce que bi xé sank sànq ne dañu war par yenn saa di jël moment. di lelu ci ñun euh, ci Sénégal ci suñu culture. bu ko sëriñ su maxi si di def dañ naan dañuy dugg xaluwa ben ñaar différence lañu tox soxla. ci côté boobu am nañ ko ba mu doy ndaxte ki mel ni Serigne Touba boo duggee daaray kaamil nga xam ni loolu woon na ba bind keroog rek yàggul yal na yàlla suuf sedd ci kawam muy Cheikh Tidiane si Al man xaw ma ko woon mais ba mu demee ba génn àdduna ba may seetaan lam fi bàyyi ak la ñuy wax ci moom ñu ne dafa loolu woon dëddu àdduna mu nekk loo xamante ni man ba léegi dafa des ci man te gëm naa ne li nga wax dëgg la gëm naa ne li xale bi wax dëgg la que de temps en temps bu ñuy loolu <laughs> dinañu jural lu bari ci dëkk bi <laughs> participer ci suñu développement dëkk Fatou ma ne woon ndeysaan yàgg na mhm. boobu maa ngi Jean mu ne ma Abdou Khader nit ñi dañu foog ne soo bëggee xam marché Sandaga mhm. da ngay dugg ci biir marché bi mhm. mais soo nekkee ci biir marché bi doo xam marché bi. Mhm. da ngay dugg ci biir marché bu si yàgg nag léeg-léeg nga génn. Mhm. toog ci tefesu dëkk ba. Mhm. di seen marché bi. di dégg riir bi. te defe naa nag loolu moo xaw a dal ki nga xamante ne bi mooy auteur bi. parce que léeg-léeg je me dis que y a beaucoup d'écrivains yi nga xamante ne bi. en dehors du Sénégal. dañu nekk en retrait ba nga xamante ne bi. dañuy mun na gis vraiment li nga xamante ne bi mooy xaw ci dëkk. et <laughs> en ce moment. tu deviens un conteur. tu deviens un prophète sur la montagne. et tu parles aux hommes, Mais en vérité, tu te parles à toi-même. Et puis c'est tellement philosophique que ça me rappelle le mythe de Platon, Abdurrahman, mhm. la, caverne. Voilà, mhm. donc euh, ça veut tout dire. L'homme de la caverne. Exactement. Mhm. En fait, euh, écriture, les, livres, comme nous avons du la sont ah. les enfants de la solitude. Ah. Euh, solitude manam ci lañ koy créer mhm. euh, alors mais force boobu solitude pour nga affronter ko il faut nga am force spirituelle boo xamante ni nids parfois c'est extrêmement compliqué mhm. Mhm. Euh, moo euh, en réalité travail de création écriture c'est un acte divin xam nga mi ngi wax sànq la force du verbe moi puissance d'évocation bi am mais puissance créatrice manam verbe bi nga xamante ne day créer moom la wax li li nga kun fayakun xam nga et eh, eh, loolu sa doon loo xamante ne nii mhm. ci yàlla la jóge mais daf ko jox nit xam nga alors nit nag pour mu jëmal ko mhm. dafay laaj pour mu génn dans la vie sociale nga xamante ne soxla yeeg mhm. soxna yeeg dem fan. Mhm. Mhm. on a on a génne loo xamante ne nii day jëriñ askan bi. tout à fait livre loolu la fi jëriñ. alors suñu invité bi aussi. Mhm. Euh, dafay travailler surtout ci wàllu valeur culturelle surtout jëmale ko ci ndaw yi. et je pense que ne ku gis couverture livre bi. Euh, dina xam ah, ne. mu doon benn pièce théâtre euh, en plus de bii la njëkk a génne. mu doon donc réflexion. parler des grands chantiers de l'État. <laughs> chantiers de l'homme. Euh, alors, mhm. ensuite, euh, lii nga xamante ne nii. Mhm. Euh, ci wàllu ndaw la jëm. Mhm. mu wax tout tuuti. pièce de théâtre bi. Ouais, pièce de théâtre bi yaay kan. moom laa la wax né c'est mes écrits de jeunesse donc c'était en 90 là, que commencé une bind mais interrogation bi moy nit ku nek da nga war joxoñ sa bop bay jaan beau naa da ngay xar sa bop ñaar Mm-hmm. Mm-hmm. tu dois répondre à cette question. parce que ton nom mm-hmm. renvoie à quelque chose. ta famille. Mm-hmm. renvoie à quelque chose mm-hmm. loolu moom mooy définir cette identité mm-hmm. cette quête d'identité là moom laa tuddee woon yaay kan c'est une pièce de théâtre donc euh, soo ko parcourir di nga un peu fou, mu jëm soxna dafa temps <laughs> mais je pense que Inch'Allah, il faut que euh, monsieur Abdoul Khadr mu dellu si fi parce que dañ ma koy wax chaque fois am na yoo xamante ne bii doo faaw faaw ñu xuus mais xam naa ne à la fin de uh-huh. l'émission incha allah mm-hmm. dinañu ñëwaat uh-huh. ñu dem xool rek uh, mm-hmm. parce que am na beneen chronique ici et d'ailleurs mm-hmm. dem xool ko dellu si waat nag jeexal jeexal suñu waxtaan bi ci uh, kaw uh, li nga xam ne moom mooy littérature alaikum wa Sénégal man la Africa Mina djouf, mangi ngi def émission euh, Tam Tam et rubrique euh, musique d'ici et d'ailleurs Africa Mina euh, mi ngi mina benn artiste ben artiste, ne mi def navette entre Italie et Sénégal. Depuis euh, 2002 parce que 2002 la débuté di def ay après ma jóge fa euh, di avec ak sama grand frère bu ñuy wax Babacar Mbaye mu dans ci groupe Mbaye mi. Babacar Mbaye Seydou euh, ñoom ñi ngi basé en en France Lille euh, tamit euh, këral naa aussi ñu bari comme ñoom jëkk ñu bari daal këral naa leen ndongolo moom ma njëkk a dalal baa ci moom laa débuté ay kër parce que dama amoon sama benn rakku boo xamante moom bu dajalee xale yi moom bu ma joxee micro way laay def du ne léeb leen man way rek moo nekkoon sama kii dëgg yàlla nag mu jàppale ma euh, boole ma algolo pour ma def musique man nag euh, xeetu musique bi may def mooy euh, maa ngi def acoustique maa ngi def reggae afro maanaam world music lay def maa ngi def aussi musique traditionnelle italien parce que am na ay italien yu may euh, joobal orchestre boo xamante ne depuis 2013 maa ngi job ak ñoom bëggoon naa la jox sama xol bëggoon naa la jox la sama xol nga bon fep fu ma mën dem ci Europe musique buñ ma bëgg ma dugg ci suma ci duggé euh dama ci duggé te suma suma ko duggé damay and ak ñom damay ànd ak ñoom parce que dinaa xam fi may teg dinaa xam fi may yëkkati donc dafay coloré quoi dafay nekk mix mix musique africain ak kii parce que ñun bon euh, suñu musique euh, booy xool euh, buñ ne alala ma ma kii xam nga loolu boo ko jëlee def ko ñoom ci seen musique ak ni nga koy ni nga koy wayee ba mu dugg ci ñoom dafay coloré nekk euh, musique euh, africain ak européen waa loolu moo tax euh, man saa su ma demee ci ñoom damay imposer Sénégal waaw parce que ñoom li ñu bëgg mooy voix bu juste ak bon mélodie boo xamante ni xam nga daf lay daf lay kii quoi dafay daw sa yaram walla dafay da nga koy dund daal Iliama tunga la tamedo Asabu iya, miliama sabaye kolonero sabami waaw xanaa li may jeexale mooy di gërëm sama ay waajur di gërëm waa sénégal di gërëm aussi sama staff alga mon manager yam walle madina lay leena da jam walle madina di nuyu ñëpp di leen wax ne maa ngi ci ay projet yu bari bëgg naa li may def sénégalais yi consommer ko waaw loolu la daal. gërëm di sant bu baax a baax Del Malick mu doon nag Africa Mina nekkoon nag may fàttali koristu euh, nongolo en tout cas ñi koy gërëm di ko sant bu baax a baax euh, Abdourahmane euh, ci biir nag littérature dafa mel ni kenn doyalul mhm. te wóor na mën a ñu ngi seetaan ñi naan oh yàq ngeen mhm. léegi livre bi nga xamante ne bi Abdou Khadre mhm. Gaye dama bëgg ñu dellu si wàcc c'est-à-dire ñu nga tekkil ñu ko ànd ak moom ñu wax ci bu baax a baax dellu si wàcc chronique littérature waaw livre bi théâtre la mu mhm. tuddee ko yaay kan nga mhm. xamante ne dafay poser mhm. question comme ni nga ko waxee sànq identité euh, mu jëmale ko surtout ci wàllu ndaw ñi mu mel ni yaa ngi firnde ne ndaw yi war na gëna gën ñaax ñu gëna xam ñom ñoy sen bopp ñom ñoy kan. Mhm. Mhm. très bien xamna lolu ñing may wax de l'autre côté il faut ñu ñëwaat ci. kon nak ci biir lolu lañ lay lañ lay mhm. tàggoo. monsieur Abdou Khadre gay c'est juste dommage. tout à fait euh, non non mais y a pas de ah. souci. je suis disponible. la prochaine fois ba <laughs> waaw ndax xàll yoon la amé dañu xàll yoon bi. Uh-huh. bon benen yoon dinañ ñëw gëna waxtaan. ci ay kan. Uh-huh. parce qu'en fait c'est une pièce qui se déroule sur deux générations. donc dafa top xalé yi ba ñu am dom ba dom yoyu mag ñaari génération yi nag jàkkaarloo. jar na waxtaanee ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di gërëm monsieur Laurent Gomis mm. euh, di euh, ñaan yàlla vraiment lii gën a jëm ci kaw parce que yaakaar ne dugub ñoo ko moom te nag nañ koy gën a di jëfandikoo am na solo. ok ñun ñoo leen di gërëm parce que déjà da ngeen jox opportunité pour ñu wan Sénégal. Mm-hmm. lan mooy dugub ak mm-hmm. euh, lan lañ ci mën a def yëpp. Mm-hmm. et que ñun ñu ngi continuer di liggéey. ci wàllu dugub boobu. te ñu ngi ñaan tamit bon beneen yoon pourquoi pas ngeen ñëw visiter ñu à Kaolack. ci terrain bi pour ngeen gis dugub en réalité. Uh-huh. lan lañ ci mën a def. Eh. lan naka lañ koy béyee naka lañ koy transformer. et surtout ça dinañ am ay podium temps yi. Euh, au niveau de Toubacouta. très très donc euh, mën ngeen ci jaar. ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax Abdourahmane encore une fois merci beaucoup on te retrouve pour littérature la semaine prochaine. oui merci beaucoup pour littérature semaine prochaine jox rendez-vous auditeurs yi ak téléspectateurs yi. surtout <laughs> ak lecteurs yi. Ah, surtout <laughs> alors may remercier Lauriane ak Noréni nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi ak Mami Fischer. très très bien merci beaucoup Khady Camara ñu ngi lay gërëm gërëm la plaisir de te retrouver la semaine prochaine. Inshallah, mhm. yaham. merci beaucoup de remercier ñi fi tu ñëpp ci plateau bi rawatina ñi ñu doon setan. Merci Abdelrahman. Merci pour le hein. euh, <laughs> voilà, très bien. Il faut consommer. <laughs> On donne rendez-vous vendredi pour éducation et civisme. Très très bien. Nous remercions euh, remercier euh, Maria Maria Mariama Magasuba saa su Sebi, Binak Mom, ci bi bi marinière la neex na ci tangay bi di numéro téléphone 77 634 44 11 Padoa Builders villa numéro H56 di len jox rendez-vous inchallah suba pour une émission Tam Tam bonne suite des programmes sur la RTS2 au revoir.